mbokk yi ñu nuyuwaat leen rek ñu nu ko waxee ñu ngi ci tudd amadi Badiane suñu suñu wëllëree Modou nag ñu bokk mhm. dëkk ci banlieue bi ah mhm. bokk ci groupe Griot bu mag boobu mhm. xam lu bari ci amadi Badiane yar ko Pikine Modou ñu ngi lay nuyu di la jaar ah doom de mbay maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay la di leen jox nag la li ngeen moom rek mooy lan di leen sant di leen gërëm tubarkalla bisimilah. tey ñu del si sarak noonu laa koy waxee Amady bajaan am mbégte muy tuut tànk ñu di ko tudd tey loo ñuy wax ci Amady muy xale bu baax xale bu am yar xale bu am teggin am fu fulam fayda am personnalité xale boo xam ni tubarkal la jaar na fu mettee méttee metti nag fu ma xam jaar na fu méttee métti fu ma xam mm-hmm. muy xale boo xamante ni am ndigal am kilifteef tey jii grand Badiane mi ngi fi ñoom Pape mi ngi fi ñoom ñëpp l'international Moussa Badiane mi ngi fi ak magam waane lépp dañuy sant rek di sant ki nga xam ne mooy alaaji euh, Mandiaye Badiane nga xam ne mooy taaw waane ki nga xam te ne tubarkal la mooy alaaji Gora Badiane mooy caat ñu bokk fu baax seen yaay nekk fi meer ndey nga xam ne moo leen uuf ñoom ñëpp tubarkal la mais ëmari uuf ay rakam téye ay rakam fonk ay rakam waane fu mu ko jëlee te ndeyam ju tedd ja wàllu ju tubarkal la ajaa fàññi nga mu baax na tey jii am na ñoo xam ne bu ma déggee tey jii ko ñu daagu seen laay danañ xam ni Amary mii la doxoon suñu diggante samay rakk yi nga xam ne la dañ koo lakkal sax ñëw nañu muy Marème Sow di Aïssata di Yaafaat ak Penda nga xam ni la li ma wax rek Jibi Njaay la bokkal muy néegu ndey muy taaw tubarkalla waane néegu ndey Kumba borom Anvers borom nag ah Belgique di seen ndey waane asukay rek la ba léegi rek boot leen waanu moom tubarkal la mu bokk ak Omar Sow waanu bi mu ñëwee tubarkal la daa bokk ak nag ki nga xam te ne ndeysaan ah mooy ngoma bokk ak jaara bokk ak tubarkal la ndey ngóone waane bokk ak ki nga xam ne ndeysaan tubarkal la mooy mama nga xam ne liw bi liw bi njaloo li mama kon bu yàlla dogalee Amary Badiane di tudd def tudd bu rëy bii tubarkal la dañu koy ñaanal yàlla na yeggali ci sagum lu mu yootu rek yàlla na ko jot luy safaan yàlla na ko yàlla dàqal baax na am na cër jox na ma ñoo nekkoon sama biir néeg man moom Ahmed Thiou sax ak Papa Ndiaye ñun ñëpp ñoo doon fréquenté ndoo waane li li ma gën a neex mooy xaritam yaa ngi fi ab Ablaye Balara mi ngi fi Ousmane Bambara mi ngi fi Pape Diakhaté mi ngi fi Bili Bili Dia mi ngi fi Bili Bongo mi ngi fi tubarkalla ak nag yeneen wóolëram yoo xam te ni la war nañoo ñëw insha allahu rabbi waane nag Amari dafa kennal kenn muy Waly Seck Waly Seck da di kenn ci Amari Amari dafa jàpp sama présenté ma Waly Waly waa li jiituwuma kër seen kër maamam fële kër ñoom Moussa Paate ah juddoo ma Pikine waane madame Gazi laa génnee ku ma fay génne waane nag xale bu baax bu am yar mooy tudd tey yal na ko yàlla doolu si sutura xéwal te na nag njabootu baayam te njabootu ndeyam ñëpp lay defal ëmmëri amul ak kenn xarma yàlla dem maa ngi nekk moom fii presque ba 4 heures du matin mais mu baax am jom am fulam fayda waane nag jigéenam dafa war a ñëw de muy bisu ngoone tubarkalla bisu ngoone dafa war a ñëw décor bi ngeen gis yëpp bisu ngoone kon yàlla na yàlla barkeel te doolu sutura ak yàlla na yàlla lafal cat te lafal ko ak mboolem julit ndax nag xale bu baax bu am yar tey daal bés bi waa ramdaana ko moom bés bi tey ñun suñu waa ko ñu waa daagu seen laaj ñoo ko moom tey nag bés bi tamit géwél yi ñëpp ko moom tubarkal la yàlla na yàlla barkeel te doolu sutura ak xewal amu daal gëm leen nit ku baax a ngi noonu macha allah kon màggul fàtte ma ko waxee ci diggam ak ay xaritam màggul kon dew fàtte xarit déedéet ah ñooñu ñooñu boo ñooñu boo leen defee deneen sax dañ lay jox dédicace ay xaritam ñoom bu leen defee leneen sax ay xaritam dañ koy jox dédicace ñooñu la Amary ñoo ñoo jaaxal Amary ñu ngi nii toog ci angle bi ñoo ñoo jaaxal Amary ñooy ay démbam ñu mu juddandool yarandool ñooñu bu dara amee Amet Thiou est-ce que demul voyage Amet Thiou toogatul mais Amet Thiou da di Amary bi di Amet yàllaa leen boole benn nit lañu comme waali ni mu nekkee waali waali di ëmëri ëmëri di waali lépp benn la nanu yàlla dimbali rek bu kenn dox seen i diggante nañu seytaane musal lool bu kenn dox seen diggante baax nanu ànd nañ macha allah amet ñëw na bu ñëwee dina ñëw incha allahu am amet su ñëwee di ngeen ko gis fii incha allahu rabbi ah li ma yaakaar doon bay yi photo yi nga xamante moom déedéet loolu dégg naa euh, photographe bi moo ko génne mais Amadou du def loolu donc la ma nekkoon njëriñu photo bi à la mais waaw xëy na ak fi réew mi toll rek ak yooyu xam nga jeunesse beeg yi ñuy def ak yooyu fogg beeg yooyu mais Amadou dem ba ma ñëwee dama ko ne ci lii laa gis sax ci laa sukkandiku woon mais dana ma carrément wallaay grand man génnuma ko photographe bee ko génne waaw mais loolu dañ ko dañ ko ci dugal mu récupéré ko dañ ko see dugal mais du moom mais ba ma waxtaan ak moom daal lii rek la ma wax na ma billaahi grand dugaluma ko dañ ko see dugal te nag nit fu mu la yem la fa ngay yem te nag loolu ma rek fa laa yem. mais Modou yow magu que du doo jóg ko waxee nga yar leen mook amet ci bu yàgg nga dox ci ay tànk la woon nekk lépp nekkaat jàmm. gëmuma ni ñoom ñaar am nañ problème na nit ñi def très attention amuñu problème de. Hmm. amet cu hmm. Amady da ko tuddee doom mais amet a njëkk tuddee doom. am na te njëkk a tuddee doom Amary tuddee ko doom muy Mouhamed mi ngay gis nii na nit ñi def très attention amuñu benn problème ay doomi ndey lanu na nit ñi def très attention ay xarit lan fu ñuy gisante nit ñi di ko yëg yal na yàlla barkeel te doon sutura xew yal na defal ñu cat kontaan ok sëñ أخذت من الدنيا وزاد الجنة والخالق أولم سفر ولا نيل مدار في الخرايا والخادلين بلمتي الخرايا رافقني يو رافقني إلى الجنان الجيم ولسوى يوسف الرجيم sëñ Bamba tursi ani layin wal fujaari kaw nu badi lil aalamiina jaari sëñ Bamba nee na yaana daadan sëñ Bamba tursi ani lakk daari wal mafaasidi salaama te bu dul ajuda say mbokk say am di contentement ak xol bu sedd waaye nag balaa ñoo wax dara ngeen bàyyi moom mu tudd ba pare ñu doog a waxtaan du dëgg waaw boo tuddee ba pare nag ñu doog a waxtaan du dëgg jaajëf waay sama gars yi ah mais loolu ma affaire bi loolu ma affaire bi sa yaay dafa liggéey sa kër bàyyi ma fekke ay omelette ay yaatu de daan subhanallah waaw omelette boo ko tuddee faaw am lu daan faaw am lu daan bu tuddee omelette faaw am lu daan hmm, neex naa ko neex naa jàllale foofu la nekk. Thank you.